regroupement alliance sauver le Sénégal euh, Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar kooku soxna Ngoné. waaw ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay ziar lu bare bare di leen baal wax di leen baal wax. aha yal na yàlla euh, boole ñu ñëpp. baal ñaan yàlla guddal fan bi wér ci te yokk mën-mën bi. amin yàlla jëlee fi mbas mi ci nu mu gën a gaawee te kenn bañ cee loru. amin amin mhm. Eh, Babacar sa xalaat ndax yëf yi am na évolution ak yooyu foog naa yàgg nga àddu ci yi nga xam ne mooy waxtaan yu demee nii jëm rek ci mbas mi ngay ñaan léegi ndax gis nga ne am nga évolution am déet. waaw effectivement dañ ci am euh, félicitation waaye vraiment di ci am naqar ak mbégteel tamit félicitation yi mooy lan ndax euh, dafay toll ci problème dañuy def bilan d'étape daa def évolu daa def évolution mm-hmm. évaluation du moins te waxoon naa bi ci seen si seen antenne rajo bi ak seen site bi wax naa ni mbas mi il ne serait pas bien que ni ñu koy xeexee ëpp loraange mbas mi ci wàllu boppam autrement dit il ne serait pas bien que les contre le corona fassent pire que la corona boobu demoon nañ boobu ci la état bi noonu bëri rek jël ay mesures yoo xam ni l'économie du pays allait en souffrir waaye nit ñi aussi doon nañ sonn parce que nit su amul lu mu lekk. du dee ci kaw lalam te ñaara moo na am boobu jamono nit ñi génn affronté corona bi avec les risques ñu feebar te wér wala ñu toog seen kër bañ a dem fenn zéro naa rey leen xam nga corona mu ne ci mbedd mi waaye ku toog kër liggéey amoo dara moom zéro naa ma dafa fekk rey la kon bu ñu ñëwee nguur gi jël instant mu jël yenn mesure d'assouplissement yi daan di kañ war nañ mën a bàyyi marché yi war nañ mën a bàyyi jàkk yi war nañ reprendre liggéey bi loolu dañ koy rafetlu waaye lañ ca waroon a yokk jëfe lañ def muy lan insister ci nit ñi di observer ce qu'on appelle les mesures barrières président dafa il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus ñëpp d'accord nañ ci il faut ñu jàng dund ak virus bi comme ni ñuy dundee ak sibiru comme ni ñuy dundee ak euh, euh, euh, tuberculose comme ni ñuy dundee ak yeneen jàngoro yi wante li ñuy seetlu mooy dañ ña waxoon ay mesures d'assouplissement mais en réalité actuellement dañu am ay mesures non pas de relâchement mais de piétinement laay wax sax wala ay mesures d'abandon tout court tey boo ñëwee sur le terrain da ngay tiyaal l'impression que ni dañoo abandonné la lutte am na yoo xam ni ni ñoo ko jël seen bopp am na état na koy jëlal bokk na ci li ma yi firnde li may wax nii amoon na ay jamono ñu ne dañuy aaye ku fréquenter plage bi foo dem de Malika Thiawane Pël Malika Gàddaay Yëmbal Géejawaay Malibu Jamalaay foo fa romb bëccëg rek gendarme yi nekk fa ak policiers yi mais depuis un certain temps gisuñu fi picc te boobee jamono bi policiers yi nekkee di surveiller géej gi daawoo gis benn picc ci ci géej gi mais tey gisatuma fa kenn ku surveiller géej gi moo tax les gens ont repris d'assaut les plages kon mel na ni nguur gi daf ñoo wax assouplissement mais en dafa def abandon. Mm-hmm. marché yi également ñëpp d'accord na ni marché dañ ko waroon a ubbi ndax nit ñi mën a dem di liggéey seen liggéey di daan seen doole. di permettre également ñiy ndugg ci marché ak ñiy jënd dem di jënd waaye foog sama xel mu gàtt mhm. jàpp naa ne ñetti fan doyoon na ci semaine bi parce que mën nañ noonu ko jàng def ko ñetti fan wala même suñ ko defee aussi sax def ko sax juróom-ñeenti fan yëpp mais ne état bi veillé encore une fois à ce que ñi ñëw ci marché bi war nañ mën a insisté ba ku takkul masque kenn du la jaay wala ku takkul marché bari ñu ay entrée fii marché boobu dem am na entrée entrée bu nekk état war na mën teg benn nit nekk fa. ay ASP yaa ngi fi agent maire yaa ngi fi le service service national mi ngi fi. Mhm. ñu jël ay mesures yoo xam dañ teg ci marché yi képp ku takkul masque doo dugg ci marché yi. boulangerie yi aussi ñu ngi dépendre ministre du commerce képp ko xam du nga ci am boulangerie di jënd mbuur te takkul masque duñ la jaay envoyé ay contrôleur képp ku nu bett ngay jaay xam takkul masque kat yondal sa kaw wala ba nga defal ay sanction mais tey defante ji nguur gi dafa abandonné loolu yëpp feeñ na ba ci le couvre feu biñ daa def ay jamono fii fooroo ba gis policier mais léegi ngóone yéen ay journaliste ngeen. Mm-hmm. da ngeen heure ku fa ngeen ci mbir da ngeen xool da ngeen fa gis nit ñi wala duñ fa wala wala wala wala gis kenn. donc je veux ni même fekk dañ ko bàyyi nañ am courage wax nañu carrément léegi bàyyi nañu xeex bi léegi nag ne xeexal sa bopp waaye nag au moins jëfe leen lii ak lii ak lii ñu xam ko mais état du def dans la mégalomanie. Mm-hmm. maanaam li ñuy affaire de soupe état de soupe soupe nit sax nit sax du ko def waxtu la état. d'accord beneen bi ci aussi mooy. jàngat nañ ci mbir mi li ñuy wax politique discriminatoire da ngay xool tey ubbi nañu marché yi transport yi bàyyiwaat nañ ko mooy transport ci biir dëkk bi. Mhm. mais sax am nañ ñetti catégorie de Sénégal yoo xam ne mën na xam ne actuellement seen souffrance ñenn ñi mu ay élèves yoo xam ni dañoo demoon ci yeneen dëkk parce que bi ñuy tëj euh, frontière Sénégal yi ma je veux dire les frontières intérieures quoi région à région boobu ñoom dañ fekkoon ñu waaj jege si. Euh, feet yi feet feet feet feet feet semestre yi mhm. mu am ci élèves yoo xam jotoon nañu dem vacances yi ñenn ñi ñëw nañ vacances Dakar ñenn ñi jóge nañ Dakar dem vacances feneen ñenn ñi jóge nañ benn région dem vacances beneen région mbaa ñu jóge benn département dem vacances beneen département tey école war a ubbiwaat le deux ñu ne ñu ne nañ jël ay car ñu dem jëli professeurs yi condition yi sax duñu ci waxaan na baaxul mhm. mais élèves yi kenn waxul ndax ndax nu ñeen transporté am na ci des enseignants yoo xam ne bi ñuy dem seen ànd seen famille dem tey ñoom ñoom kese seen tamit seen famille seen doom yi war a jaay di jàng waxuñu nan lañ leen di indee transporteurs yi nga xam ne ak ay chauffeurs yi bi ñuy fere frontière daf fekkoon ñu génn seen dëkkuwaay yi nit dëkk na Dakar daal oto dem Ziguinchor affaire yi fekk ko fa ba tey ma nga Ziguinchor mënut a ñibbisi waat Dakar non seulement fu mu nekk liggéeyu fa waaye mun a ñibbisi kookee nekk na ci coono bàyyi fa njaboot koo xam ni ñoom ñu ngi ci coono ndax moom mi leen doon assuré dépense fayum fayum courant fayum ndox. Mhm. liggéeyatul dafa ko. day xaw a métti muy ay jafe-jafe yoo xam ne dafay dafay ñëw dellu si ci ci ci feebar bi. ah. waaw ma ne loolu li nga wax yëpp bu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne day ñëw. Ah, dalaat ci ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi loolu moo tax tey jii ñuy waxtaanee rek relâchement bi nga xam ne sax gis nañ ko comme ni nga ko waxee léegi ah, ci population bi ma bàyyi la directement nga dugg ak professeur ci thème bi pour ñu tënk ko. donc ça donc ah, que loolu moo wax ci valable na également ci ñoo xam ni dañu nekk ci le monde rural ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ni maanaam duñu noppal sax ndeysaan mm-hmm. su nawet jotee ko toll yi liggéey bu noor jotee ñu daw dal seen doole ci taax yi taax yi amatul liggéey ñoom ñu toog fi ñu doon seen kër yi amatu sax nuñu fay luwaay li ma wax dama ko gis fa dama ko dund gis ñoo xam ne ñëw nañu ci waxtaan ceeg man mm-hmm. am ñoo xam ne dafa nekk mu ne ma lu ma mës a xalaat ci aar dama ba dal tey lu ma ndogoo ndax la fi ñu doon mooy le secteur informel aay nañ ko bu yàgg tëj nañ ko fi ñu daan dajaloo ñun tuñ ko def amatuñ lu ñu fay lu sax ba pare mënuñoo ñibbi ndax dañoo tëj dañoo tëj dë dëkk yi te ñooñee aussi nañ leen bàyyi dem ñibbi. Mhm. surtout que ñoom ay béykat lañu. nawet commencé na bii jamono ba demoon ci àll bi ñu ngi nekk ci li ñuy wax ay ruuj ak di waajal nawet bi kon encore une fois il faut état bi duggaat dans la lucidité xool nu mu war a def ba jël en charge toutes ces questions mhm. bi nag am na. damaa wax ni état bi moom mooy njiit mooy ndeyu mbilig ba état bi moo njëkk relâché l' état nous a de d' assouplissement mais en li xew sur le terrain la ou abandon tout ou ou abandon tout court kon jot na tey état bi soit mu gëm xeex bi xeex ko wala mu ñàkk koo gëm daan ne ngay lékkat ñun dañu doon taaw yi rek au départ naan corona corona corona corona mais tey on se rend compte la maladie n'est pas aussi grave qu'on l'a présenté jàng leen dund ko comme ni ngeen dund sibiru ni ngeen di dundee ak euh, soj ni ngeen di dundee ak euh, euh, grippe ni ngeen di dundee ak méningite ni ngeen di dundee ak leneen ak leneen waaw. Mm-hmm. d'accord professeur ma bàyyi la ak Babacar Mbaye. waaw Babacar ñu ngi lay nii la ziar bu baax. maa ngi lay ziar bu bari bari. waaye da jërëjëf jërëjëf ci disponibilité bi léegi. Mm-hmm. wax nga ci relâchement bi effectivement am na mm-hmm. mais da ngay gis ni également. Euh, fi nga xamante ni mooy Dakar ak Touba presque bokk nañ ci zone yi gën a infecté euh, yaa ngi yëngatu souvent Géejawaay euh, ñu ngi fay annoncé presque cent cinquante cas cent quarante quelque yoo xam ne am na fa surtout le maire aussi affaire bi am na jàpp na ko mooy ki nga xam ne mooy Aliou Sall ban commentaire ngay def ci situation boobu. waaw d'abord ñu ngi ñaanal le maire Aliou Sall moom ak soxnaam yàlla saafara. li dal seen kaw tey saafara également ñeneen ñi mu dal ñëpp tamit doomu géejawaay waaye aussi wéral ñëpp ñi nga xam daal leen nekk ci réew mi ñu nekk bitim réew. amiin ñu delluwaat ci ñaan yi ñu ñaan mooy suñu borom yemale fi feebar bi ñi tëdd ci hôpital yi suñu borom fëgg seen bopp ci ni mu gën a gaaw ñu dellu seen i kër seen i liggéey ñu ngeen jot na cee faatu suñu borom yërëm leen tabal leen ajana. pour revenir à votre question mbir mi moom ñun mos dañoo yàgg ragal ne bis bu dugg ci côté banlieue bi rek daf def ay ravage mhm. yàlla nag ñu ngi koy sant bu baax a baax lañ ko santoon ndax am nañ fi ay cas positif waaye amaguñ ci moor yàlla buñ ko am yàlla buñ ko am te parce que xamoon nañ ni sunu côté yi dafa nekk ay dëkkuwaay yoo xam nit ñi dañuy vivre en communauté dañuy nekk ci ay concession boo nekk ci quartier sax maanaam kër diw bu ne kër keneen beneen diw la maanaam nit ñi am ñu ko bu seetloo njaboot gi yëpp benn kër yëpp benn les gens se fréquentent comment fa waxee te xamoon nañu aussi la forte concentration humaine c'est que bis bu jàngoro dugg ci yenn gox yi rek walante mën na faa gaaw mën na faa yomb lool xoolal tey am na quartier yoo xam ne ba en passé sax amuñu ko woon dañ koo am ci espace boobu fukki fan nga dégg ñu parce que la transmission communautaire la koy gën mooy fréquentation te fréquentation dafa bari suñu gox yi. bokk na aussi li nga xam ne aussi mooy li ma sànq rek boo seetloo kañ la kaay commencé bari côté bi nga xam ne commencé nañu gis effectivement relâchement bi am dans la lutte contre le corona. Mm-hmm. te loolu aussi encore une man damay indexé état bi nga xam ni wax dëgg yàlla am na mesure xam moom rek moo mën a veiller a ce que nit ñi respecté ko. Mhm. nit ñaa def lu ñu mën waaye nag yemal fii mbaama def la nii lu état loo ko man mais xoolal sama sëriñ li nga xam ne moo xew barki Dembo Ndiaye Malick la te démb mu xew Malick mu xew mu xew mu xew mu xew. Euh, Sika Mbao euh, euh, Sika Mbao. moom la ñu bëggoon laaj d'ailleurs mais scandale fan nga mën a gisee mhm. mais yow. almer amul fu ñu wax tabar tabar tabar si daa sax kenn du la fi suul mais ay nit ils se font juste eux-mêmes xëy bis ne noonu duñ fi suul nit parce que dafa am corona mais ça loolu tous les sénégalais l'état en premier Macky Sall en premier lieu moo war a taxaw nu mu gën a gaaw pour qu'on mette fin à cela mm-hmm. c'est scandaleux et j'en profite pour lancer un appel au président Macky Sall lancer un appel à monsieur le procureur de Pikine pour que une enquête soit ouverte pour que ces est remis à à à dans l'ordre parce que kenn mus sa gis kenn mun a imaginer mais yow ku feebar corona ñu lay daw nga tee ñu lay daw mais fan la àdduna bi jëm corona mooy lan donc pour exemple tey rek état aussi nekku fi rek am doole yoo xam ni daf koy jëfee rek ci kaw opposant te mel na suñu état bi ñun balaa nga xam am nañ doole rek moo ñu war a yàq marche opposant mbaa ñu war a jàpp opposant mais franchement parle dafay jaar nag que l'on revienne état mais lii may gis nii au-delà bi au-delà bi du li nar a am mooy da nga nar a perdre état nekk dootuñu nekk état ndax anarchie mooy am ku nekk lu la neex nga def donc pour ñëwaat ci question boo sànq mbiru daal man li ci jàpp mooy xeex bi ñi ko war a jiite te nekk seen bopp muy ku fi tegal ku fi teewal état muy man tey su ma ko doon may note ñoo ko may note ñoo ko may note bu ëpp cinq sur honnêtement parce que dama gis ni am na sax ay mesures yu ñu jëloon mu waroon cee tax veiller à ce que nit respecté ko talu ko xamu ci lu mu nekk ba finalement dañuy xool xool géej gi ma la wax sànq rek. Mm-hmm. géej géej bokk na ci géej gi nga xam dama ne mel. demal ci marché demal marché bu bees demal marché Ndiarène demal marché bu la neex demal nga xool la fa nekk ak fa am yëpp donc cela veut dire état aussi moom mooy moom quelque part moom moom moo seetaan relâchement bi. ba xam man jàpp la. Hmm. d' accord euh, Babacar Mbaye ñu ngi lay euh, gërëm bu baax ci kàddu yi nga xam ne euh, wax nga ko.